ci wàllum seen conférence de presse boobu am na ku ngeen dut baaraam. Uh-huh. xaw ko am lu ngeen wax si moom uh-huh. Ousmane Sonko. Uh-huh. démb daje na si ci obélisque place de la nation. bi mu def démb tiitalu la tiitalu non man man Sonko bëgguma sax di di wax ci moom ah, parce que c'est il a été fabriqué de tout pièces ah. ak yooyu c'est vrai que bénéficié wu na ci liñ ko dàq parce que Sénégal dafa dañu gaaw a yërëm duñ xool sax yow jéeye bi nga def ak yooyu mais une fois que ñu néewal la doole genre par exemple dàq la wala nga ci kaso bi rek nga am ay sympathie tey Karim bi papaam nekkee ci nguur gi xam nga ne soo jëlee fukki sénégalais pour nga gis kenn ku ko ci bëgg sax problème la wala bu rombe mu xool ko mais tey kaso bi mu traversé ak nee nañ dafa dem exil waa PDS ñoo koy wax donc tax na ñeent ñi am ay sympathie ci moom donc Sonko ci effet boobu la la profito mais mois je dis que ne euh, ñi ñaa ngi koy commencé découvrir parce que ci internaute bi di nga gis ñuy wax ne yenn yi muy wax ëpp na parce que bu fekkee koo xam ne tu aspires à diriger le pays ak yooyu wala bokk nekk ci. ko dem de arrogance bi ko gars yi fone loolu. Ah. Mhm. loolu loolu moom. Euh, c'est que dafa gis injustice rek mu am fitu dénoncé ko wax ok ok du terme arrogance waaw ba tey bon mais xam nga nit ñi aussi loolu lañ jàpp ne arrogance bi ton bi et tout ça ak yooyu et xam nga arrogance aussi du question nii wax nii rek wax wax ju dëgër mais aussi wax lu dul dëgg aussi arrogance la mm. <laughs> waaw mais xam nga moom allégation yu muy joxe souvent amul te ba mu ci nekkee moom <laughs> ministère de finance la la bokk donc ba mu ci nekkee lu wax dara parce que xamante leen aussi mais tey bi mu génnee donc la commencé di sulli ay mbóot donc mais je pense que c'est une peine perdue waaw wax lu ñaaw yomb na waaw mais ñu fekk la ci euh, nit ki war na ko bañ waaw mais tamit li mu dajalee démb ci place de la nation bu topp nga ak tamit loolu war na tiital nit dafa daje ci mbooloo waaw mais xam nga dajale ay nit aussi yomb na. Hmm. mobiliser ak yooyu. moo mais ñëw nee nañ ñoom ñoo fa jël dajale ay patriotes lañ quoi. waaw dajale ñoom ñoo paasal seen bopp ñoo fa. donc amuloon ay njagañaay man gis naa gars yi filmé ay njagañaay. ñoom ñoo cotisé. waaw xaalis njagañaay a jox xaalis ne hmm. ah waaw mais lan moo leer ne aussi dañu cotisé <laughs> xam nga loolu aussi c'est un problème cotisé ñan lan moo leen leer ne dañu cotisé est-ce que gars jaaruñ si suuf jox leen ay entretien di seen émission boo xamante nag Tawfekh Production moo leen ko indil di dalal ay kàngam yoo xamante nag ñoo xam ñu nekk ci làngu politique yi wala ci wàllum koom-koom bi wala éducation soxal na actualité réew mi ak lépp lu jëm ci wàllum rek li suqali réew mi loole nag mu nekk loo xamante ni day am ci seen Tawfekh Production mu nekk émission boo xam ne képp ku mu yitteel mën nga woote ci numéro téléphone yi di 77 792 50 43 wala boog nga jël numéro téléphone bi li 77 251 04 05 mbokk yi émission baa ngi képp ku mu itteel nag bul ko wute te mbokki internet yi bu leen ko tàddee benn yoon ndax lépp lu jëm ci wàllum décryptage jàngal leen o lépp lu soxal actualité réew mi dañ ko ci waxtaane ci biir émission bi direct entretien ci Tawfekh Production